asalaamualeykum mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xel yéen ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar de am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci benn actualité sportive di xibaaru tàggat yaram boo xam ne yaakaar nañ ne dina war a soxal waa àdduna wërngal kàpp rawatina ñii di sénégalais yi ñeel footballeur sénégalais bi di Sadio Mané mbokk yi fan yii yëpp ñu ngi doon werante ndax saajo maane dafa nar a bàyyi. club anglais bii di Liverpool wala déet waaye tey jii day liñ doon laam-laamee am nañ ci xibaar bu leer nañu ne kii di l'international sénégalais bii di Sadio maane dafa nar a bàyyi club anglais bii di Liverpool nar a dem ci club allemand bii di ne Munich lool nag teg tegtal yu bëree bëri moo koy wane fas nañ cee yéene tudd lenn incha allahu rabbi Euh, mbokk yi tegtal bu njëkk bi moo di tey jii ci mardi bi 21 juin 2022 di talaata euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin atum ñaari junni yu toftal ñaar fukk ak ñaar kii di Sadio Mané amal na ñaari visite médicale fële ci réewum Allemagne benn visite médicale bi nga xam ne moom la amal ci ngoon gi dafa nekkoon euh, visite orthopédique muy dañ doon seet lu jëm ci yax yeeg yu ni demee kon Sadio Mané mi ngi waajal euh, transfert am ca club allemand boobu ñuy tuddee club bavarois di Bayern Munich kon ki fi nekkoon numéro 10 ca Liverpool nar na signé contrat wu ñetti at mu di contrat wu trois ans salaire ba nga xam ne moom lañ ko nar a fay nag moo jara tudd ba ñëpp xam ko ndaxte kii di Sadio fële ca Bayern Munich nar nañ ko faa fay salaire bu tollook un virgule quinze million d'euros weer wu jot lool nag boo koy xayma ci français CFA day toll ci sept cent cinquante trois millions. Euh, kon nag euh, loolu ëpp na fuuf la doon fayeeku fële ca Liverpool ndax ca Liverpool weer wu jot ña ko fa daan fay salaire boo xam ne soo koy xamee ci franc CFA day toll ci trois cent vingt sept million ci weer wu jot. Euh, Sadio Mané bokk na ci tegtal yi wane ne jege na fii di Bayern Munich mooy tey jii sax añandoo na añandoo na ak ki nga xam ne moo di président directeur général Bayern Munich ba léegi itam euh, ci tegtal yi dem na ca centre d'entraînement bu Bayern Munich kii di Sadio Mané itam incha allah rabbi nar na joué fële ca Bundesliga ca club bu Bayern Munich saison bii di ñëw kon nañ ko xaar ci saison prochaine bi fële ca Allemagne. suba ci àllarba ji yamook euh, ñaar fukki fan ak euh, ñaar ci weeru juin atu ñaari junni yu toftal ñaar fukk ak ñaar di mercredi 22 juin 2022 lañ nar a présenté kii di Sadio Mané ak euh, public bi muy lañ ko nara wanale ak mbooloo mi suba itam la nar a signé wu ñetti at yi muy contrat wu 3 ans yi incha allah rabbi lool nag ñu ngi ko nar a amale fële ca Alliance Arena mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ak di partager lien wu chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen ak lien wu vidéo yi jàngeen jëf wasalaam